Life Association ah, tey ñoom nag ñoo jël tànka tànka bu nga xam ne nag dina dimbale ñii di nga xam ne moo di nurse yi ak midwives yi pour ñu am lii di nga xam ne nag moo di mandarga bu leen a jox doole ah, pour ñu def seen i liggéey fii si biir réew Gambia ak bitim réew. examination for them so that you are assured that dañ dee def li nga xam ne nag moom moo di ab examen pour nag jox li xam ne nag moom moo di képp koo xam ne nag am na lii di e catégorie bi nag xamal ne borom daf ko yelloo ak itamit am li nga xam nag moom moo di xam bi li nag dañ dee def li nga xam ne moom moo di standard examen pour képp koo xam ne nag dañ ko jox li xam ne nag moom moo di lesin seetuñ ne borom dafa amee xam-xam ci ab training institution wala ci beneen béréb li nag ab loi la boo xam ne nag dañ ko dugaloon ci atum 2019 fii ci réew mi pour nekk di liggéey ci wàllu wér gu yaram te ci amuloo li nga xam ne nag moom moo di ab laysin nag leneen loo xam ne nag dafay yàqal te itam képp kuñ ci jàpp nag dinañ la yóbbul ci kanam yi àttekaay te itam dinañ la fay ko lu tollu ba ci ñaari junne ci xaalis yi dalasi soo ko fayut nag di nga fanaan lu tollu ba ci ñaari at ci kaso. It is encouraging to know that the Nursing and Midwifery Council ñu ngi ñaax ñi nga xam ne nekk ñoo nekk di yëngatu si wàllum faj bi ñu bëri gën a xamee Nursing ak Midwifery Council bi ñoom nag si jamono ji ñu ngi leen di rek ràññee seen taxawaay bu rafet boo xam ne moom leen dal di jël boo xam ne nekk ñu ngi ko gën a xamee si professional regulatory boo xam ne nag moom leen dal di taxawal di wane seen xarañteef ak seen taxawaay bu rafet boo xam ne moom leen dal di def ba waral nag ñu génne li nga xam ne nag moo nekk registration and licensing mechanism pour nag bindu ak nag xam ñi nga xam ne nag ñoo leen seen xam ko màcc ñu jox leen ab maxaama boo xam ne nañ ci mën a taxaw pour nag di wéyal seen liggéey fii si biir réew mi jamono joo xam ne nag daf leen seen li nga xam ne mooy seen examination bi am na nag lu ne moo leen dal di teg mu nekk boo xam ne dañu ko commencé woon si atum 2019 boo xam ne nag yaakaar nañ ne képp koo xam ne nag def nga sa exam bi te nag yokk si ab maxaama yi nga xam ne nag mën na lay dal di nag jox bi lay raaya kansul bi nag dinañ bu baax pour gis ne nag ñeneen moo nekk loraange pour bi ar tam ñi nga xamne ne nek askan bi ci li nga xamne nak mo nek seen liggey ak ñi nga xamne seen xel match na ci bile liggey dika yu bëri nak ñu ngi dal di joge ko li di analog dem ci digital system bi. tay nak gis nañ Gambia Midwife Association ak Ministry of Health ñom nak ñoo jël tank bi pour nak dimbale noos yi nga xam nak nag seen liggéey màcc na pour ñu jox leen mandarga bu nga xam dinañ ko jëfando pour ñu mëno jox li di nga xam modi moo di yaram bu baax Paradise TV News Momodou Koli.